jot barke Sëñ Tuubaa jot membre boo xam ne ñu ngi ci daayira Sifaa Sudoor mu bàyyi ci xel bu baax ci ni ko waa daayira bi tënke rek ci matale e, sart yi ci ji teew waaye di teg tey teewlu ndax loolu bokk na ci sart yi doxal mbooloo képp koo xam ne yàlla dogal na nga am carte membre nga bàyyi xel jëmmi carte membre bi sa kem kàttan ci li nga man boo mënee matale lépp ci li ñu wax baax na boo ko mënee boo ko mënut nga def sa kem kàttan rek nga xam ne mbooloo moom noonu rek lay doxe euh, mooy kenn ku nekk lu man rek mu def ko te yàlla rek tax te lépp lu tuwaay def mu def ko te yàlla rek tax lu am solo la kon ñu ciy soññi suñu bopp waaye di ci soññi mbooleem sufa usidóor yëpp ak fu ñu mën a nekk yéen ko bàyyi loo xel bu baax a baax euh, ginnaaw loolu soññee bi moom xëy na du gudd ndax dañu jëkkante ak waxtu wi waaye xanaa di wax ni ñu gën a bàyyi xel suñ digganteeg suñ borom subhanahu wa rek ci ak jaamu yàlla ndax kenn ku ne xam na ni suñ borom bu ñu sàkk suñ jëmm ñu jaamu yàlla rek moo taxoon mu sàkk wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon lépp luñ mën a nekk rek nañ ca sàkk ngërëmul suñ borom subhanahu wa taala ci suñu wax ak suñu jëf ak lépp lu mën a doon tey mu gën a rafetal suñu taal bi suñu diggante suñ ci wax xam ne bokk na ci li muy jariñ muy ak taal ndax sëñ Abdul Ahad daa waxoon ni sëñ Tuubaa amul doom amul mag amul rakk daanaka kenn ku nekk ci ñoom da nga ak moom ñëw nga ko ñëw nga dëkk moom nga jaayante ak moom muy jënd ko ak taal bi kon sëñ Tuubaa ak taal bi rek la am loolu sëñ Abdul Ahad waxoon kon nag ñu sàmm suñu taal bi bu baax a baax xam ne lu waay mën a amul taal rek moo gën. ak taalibe nag mooy koo xam ne day sax lépp lu baax du moytu lépp xam ne ab safaan la ab taalibe dëgg mooy koo xam ne dañ ko gis ci dara loo xam ne du ñeexul yàlla la wala ñu ñeexul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne waxtu bu nekk li yàlla bëgg rek yonente bi bëgg ko sëñ Tuubaa bëgg ko te loola lay sax kon loolu ñu ci gën a bàyyi xal baax waaye it e, ñun jullit yëpp ñu war a amaat ab taxawaay ci ci li mu muy lislaam e, ndax kenn ku ne xam na ni daa wax ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum mboolem ñu maase gëm yàlla ñëpp ay mbokk lan te it yàlla a wax ne nañ leen rafetul ngeen mbokk fii jamono toll ñu bari xam na ne am na ay yëngu-yëngu yu bari yu xew rawatina ci dëkk bu tedd bii di Tuubaa ñu nekk fi waaye mu su julit waaye mu xew su mbokk taal bi mën nañ cee tudd li nga xam ne moom am ay firnde yu leer ci yu bari sax. mooy sëriñ Fallou ba mi nga xam ni samedi ba la jàll rek lañ ko faat fii ci Touba ci côté Sëriñ Bees naa ba ay waajuram ma jaale leen ko ba noppi defal leen waaye nga xam ni jëf jooju ñu jëf ju ñaaw la euh, ku ne xam na ni xajewul fi woon ay defkatu ñaaw teef yoo xam ne ñu ci dëkk bi waaye li ko mooy bay bayal ga rek mu ëpp dañu euh, dem ba nga xam ni romb naan wax te lépp ay noonu l'islam tepp lan yoo xam ne xeex l'islam la yéen a tax a mën naa am ñu am ay lay mën naa am ñu am ñu leen jënd ngir ñu def naa ci si mel noonu ndax kon ku ne xam ne xale boo xam ni toll bu ci am bàkkaar kon si waaye ñoom juróom-ñaari at yu tey ñetti weer la am wala juróom-ñaari at yu tey ay weer yu néew euh, yàlla dafa mu nekk ci daara di xam lu alxuraan waaye nee na bi mu xëyee daa jàngi alxuraan bi wax bu ndékki jotee lu muy wax ci kër gi bu ndékkee ba war a delluwaat sa daara ji lan ko fëre ji yóbbu ko tabax rend ba bisu tey kenn xamul ka ko rend mooy kan euh, kon loolu mbokk yi lu ma ta bàyyi xel la waaye lu mat a ñaawlu la it waaye bu jëpp ñoo xool yëpp ndax sunu borom subhanahu wa taala daa wax ni annahu man xatala nafsan bi xayri nafsin aw fasadin fil ardi faq adama xatala naasa jami'an sunu borom daa wax ni ku rey benn jullit ni ku rey jullit yëpp kon ñun ñëpp dañoo war a yëg ni ñun jullit yëpp tiis wu toll noonu na suñ kaw waaye naqar wu toll noonu dal na suñ kaw ndax suñ fàllu moom yi bu yàlla mu dund mën naa denc soxna am ak njaboot njaboot mën naa nekk aw kon lépp lu yàlla wax ci alxuraan dañ ciy tek sa bët tey mën naa dem ba nek ak sëriñ daara bu mak doon borom xam-xam xamal ni bare bare xam-xam yu nek di xam la waat kon li illuminé kenn xamu ni ko lu ko way xam na nak bàyyi lolu nak la yalla ko sallallahu alaihi wasallam sallam waxoon ci bàyyi xel bu baax man ra'aykum munkaran munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa zalika afdalu iman bu ngeen gisee lo xam ne na naqari ni yàlla naqari yonente bi sallallahu alaihi wasallam ñi nga xam ne dañ ko mën a saafara seen loxo mooy seen responsabilité kon ñi nga xam ne ay kilifa lañu te mën nañ koo saafara seen loxo moo xam muy ay xalifa général moo xam muy président de la république wala ñun mën a doon ñoo xam daal am na responsabilité man koo saafara seen loxo kon saafara bi seen loxo lu leen war la buñ ko defut it ëllëg bu ndajeeg suñu borom subhanahu wa taala yàlla dañu leen ko laaj te kenn ku nekk dana wéete yàlla yàlla laaj ko bu ñëpp àgg fenn wa kullu moo aat yamal xiyaama far wa kullu moo aat yi yawmal qiyaama farda kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ki nga xam ne it mënu koo saafara ci loxoom boobaa it na ko naqarlu ci aw làmmiñam mooy képp koo xam ne am nga baat te boo waxee ñu dégg la nopp wëratul kenn ñëpp dana a wax euh, nga xam ne am na baat te waxut bu ñu waxut ëllëg bu ndajee seen borom subhanahu wa taala danañ ko lay ak boromam subhanahu wa taala waaye danañ ko lay ak Seexul Xadim kon ñu am baat bu ñu waxee ñu dégg leen kon ñoom itam wax da leen a wax ñi nga xam ne amul baat nag منين وصل رسول الله أبن بع يعني لو منين وار ما ينقر سنهم قالوا لا أنا في الفسر يا بيت وتد منين أنت بتبعت الآن أنا فيك بس كتير الجاس قالوا ريت لما فا ما يخلى هم قال أمنا أي نت مثلنا كنا هم قوة دنيا في جبل وهم خينا قد أم قوة متخ ولا أدبور متخ يلا رك وهم الله أهلهم وأي نما نتخ متخ ما نم فاتا نفاتا قال سندوني قال نجلس سندوني جسات سندوني بيجي يعني nan ci nan ci bàyyi xel am ci ab taxawaay bu baax a baax ndax loolu dañ ko daan dégg bu sori waaye dem na ma nga xam ne ñu ngi ko di ko teg loxo waaye ñooñu di def loola rek naan xam ne suñu borom subhanahu wa taala nee na wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam xaadir fiha nee na képp koo xam ne da ngaa rey bakkan julli te tey ëllëg yoomal xiyaam suñu borom dana la tàmbal sawara te yàlla da lay saxal sawara kon ñi nga xam ne rey bakkan la ñuy def moo xam alal a tax ñu koy def jëru ko bu dee nguur a tax ñu koy def jëru ko ndax nguur gu dul nguuru yàlla nguur gu folli ko la te it nguur wut a jaar nit ki di lor bakkan waaye alal wut a jaar nit ki di lor bakkan ndax nit ki lu mu mën a alal yoo xam ne bakkan wala lu mën a doon mën na fee dem bàyyi fi alal bi ëllëg mu teewaat ci kanam yàlla alal joojee suñu borom subhanahu wa taala mën na koo soppi ay juri sawara di ko ko ñaas wala si ne yàkk soona sahaba wa fitnata wala duqana fi sabilillah faba sir bi xasaran amin yawma yuhna ala fi nneeri jahannama fatuko yaa junaahu wa junubu suur maa kanastum li anfusikum fazuuquu maa kuntum taknisuun loolu yàlla wax ci alxuraan nee na bari na ci ñoo xam ne seen alal ëllëg yawmal xiyaam yàlla ne da koy sotti biir sawara bi ko ñaas kon loolee jër bu dee nguur la nguur gudu nguur yàlla day daanu nguur nguur a fi jóge kon nguur bu te tax nit ki di sacrifier bakkanu doomu aadama eh, ndax jër te kenn ku ne xam ne ni bu dee daa am ñu leen koy defee ñu leen koy du ay jubbi nga xam ne ku ay ku ak jubbi di ko def ba pare di ko defee waaye ko defee ci dëkk bu tedd bii di Tuubaa kon koo xam ne bàyyi xel loola xam ne sëriñ Tuubaa yi daa waxoon ne laa tastawi dunya bi uxra yaa fata bi dugg fa seen dëgg daa waxoon ne képp da ngaa jaay sa jënd ak lu mel ne ko rëcc mooy ku jaay sa àllaaxira rek jënd ko sa adduna ndax adduna lu mu yàgg yàgg nit ki dafi jóge rek àllaaxira nag fële nit ki nit ki dafa tàbbee xale sax du ko jógee ba mukk ndax suñu waroon wax ne kon àllaaxira mooy ab saxwaay way ëpp abdar way tek ak ab way nag képp ku fi nek war ngaa fexe ba rafetal way bu ni da dëkk bu toog bii ñu nekk di tuba day dëkk bo xamni suñ tuba bu ñu koy sanc daa wax ni kenn musse tour dar dara nak ak bur buur mus koo moom du bur Siin du salim du kajar du Jolof ba tey benn bur bu fi musa sax ak ay tebe ba dara tour fi amut kenn musse tour dar suñ tuba mo njëkk sant ci dëkk bi bi mu sanc dëkk ni dara nit ak gopp la woon xamni dara nit Sëriñ Tuubaa moo ko sant bind xasida goo xam ni ko tudde làkk Tuubaa muy xasida Madabul Fawzayni ci la Sëriñ Tuubaa ñaane woon suñu borom ni ko wa maskani salli min al fujaari wa la ahum bi maa ijaari waaye wa maskani min al fujaari bi Sëriñ Tuubaa ñaanoon yàlla may xam ni am ne nit ñu dëkk Tuubaa nag ñooy saytu Sëriñ Tuubaa loola ndax Sëriñ la ba nag mu door ko ay ñaa def kati ñaawtu di tàgg ci dëkk Tuubaa kon bay bayal bi moo ëpp xoola fi dañ wax ne mbégum kanam borom ma koy fajal boppam ko saafaram li daal mooy dëkk bi day dëkk di dëkk boo xam ne dëkk bu jaamu yàlla la di dëkk bu dëggal di dëkk bu ñu topp sunna di fi nekk bi daal wa daara wa sidqin wa wara wa daara sunnati wa man jam min bi daal kon nag buñu demee ba di jàpp ay nit di leen waaye di sàcc ay nit di leen waaye di fi def ay ñaawteeg yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ba mu yëg rek maa ngi jokkoo benn di nee na doomam daal ñu woon buur yàlla dogal mu jëm ci biir kër gi benn kat-kat fekk ko dugal woon oto bi yóbbu waaye yàlla dogal mu teel ko yóbbu jël oto topp ko te jàpp nañ kat-kat boobee nee na nee na ñooñu bu leen jàppee nga nga gendarmerie bu sànni ci leen ñi nga nga fa jibi rek lay jokkoo borom doom so soxna si màggat jóob la tudd euh, maanaam bàyyi mbay jóob la tudd Tuuba gi la dëkk mbuur la nekk kon loolu ñu doon ci gën a bàyyi xel xam ni euh, ñu ngi yaatu daal ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi jaajëfalaat mbokk yëpp di ñaan rek Sëriñ Tuubaa defal nu nu sax ci ak njullit eh, waaye sax ci ak taalibe waaye ñun waa daayira Safaa Suudar yi bu gën a man gën a góorgóorlu xam ni daayira day lu am solo Seex Mbàkke mi nga xam ne moo ko sos daa ni eh, yoon yu jëm ci yàlla yëpp daayira mooy bi ci gën a gaaw te nee na bu xamoon weneen yoon woo xam ne moo gën a gaaw daayira ci wala taleu teg ndax daayira dana jur xamante te xamante dana jur amante te amante dana jur jarñant na ci ku fi teewlu boo gisee safara ëllëg da nga ko xam ay ëllëg da da da da nga ko da nga ko jariñ ndax kenn ku nekk mu ngi jariñ moroomam ci alal rek daa muy jariñ moroomam ci dooleem daa muy jariñ moroomam ci ci ci ay ci ci ci wërsëgam wala ci xam-xamam wala ci dooleem kon loolu lépp euh, njariñ la kon maanaam mbooloo ku ca bokk da ngaa war da ngaa war di teew ndax teew bi mooy waral ñu xam la mooy waral nga xame waaye da ngaa war di teg ndax teg bi it mooy waral lii ñu bëgg a def ñu mën koo def ndax bu fekkee tëbul lu mu bëgg a def it duñ ko mën a duñ ko mën a def waaye da ngaa war di teewlu it ndax teewlu mooy kàddu yi ñu yëkkati moo tax nga mën koo jariñoo waaye dayam ci mën ko jariñoo waaye day tax nga mën koo jàllale ba nga xam ne keneen ku teewutoon dana mën a jariñu ci kàddu yi waaye bu fekkee nit daa bokk ci mbooloo du teew du teg du teewlu bu du teew kon daayira bi am ndax daayira bu ñu koy wax mooy mbooloo mu daje mbooloo moo xam wax ku rek nga ne daje waaye bu kenn du teew ci mbooloo mi kon bu ci dolli mooy bu fekkee duñ teewal it kon li mu bëgg a def duñ ko mën a def bu daje bi amul ah bu bëgg bu daje bi amul li mu bëgg a def duñ ko mën a def waaye bu fekkee dañuy gàntal it lu ñu wax ñu ne daje mënu ko daje sufa su door am doole la boo xam donte ñett lan maanaam doole mooy doole te bu ñu jéem rek mën nañ ko mën su wax ñëpp bu suñ pas-pas gënoon a kawe a ku ne jàpp a ku nekk gën koo yéene boppam moo ko war a def boobaa bu ñu bëgg a def mën nañ koo dëndal am na Kaolack am na Gisaas am na Dóorum am na Thiès am na Dakar kon loolu mu bëree la kon li am solo mooy gën a rek li nga xam ne mooy li li bi bëgg buñ ko nosoo rek jaar yàlla na noo defal tawfeex li nga xam mooy suñu yëri xam ne mbooloo mi li muy bëri bëri kenn defut kenn dara la seen dëkk daan wax kenn defut kenn dara lu waay def sa bopp te ay suñu borom nee na man fa li nafsihi wa man asaa fa alayha te suñu borom nee na lu waay jëf moom rek lañ koy fay te yàlla kenn ak kenn ولا تشر واسرة وسرة أخرى طيب يلا أنا نت من بيت التنباع بيجي من تك من بين كاي لنا وما تقدم ولا أنت من قيم تجد عند الله وقيرا وأسعى أجرا أسمع رم ورجال مباح كب كود كما لك بل جبني أنت باح ملفك من جاء بالحسنة قل وعشر أمثالها ولا من بين باح كود كما لك بل جبني أنت باح مثل المسلم ينفق عن عمل في سبيل الله كما سمي حابة أن رصدها الصلاة في كل سبيل ذات هذا dañ la gudd waddaa xam daa fi liman yasa wala waasun alim mu ma neexee sax ku la yëngu ay milliards kon bu ay amul rek ci moom la waaye yàlla xëy ko moo tax sëriñ Tuubaa daan wax ni na ngeen bu leen na ngeen góorgóorlu ba seeni benn benn ba ëpp seeni fukk fukk ndax ku def benn bu ñaaw suñu borom dana xaar vingt quatre heures te fekkee jéggalu na ko yàlla faral ko bu ko jéggul mu bind benn bu ñaawam boobee waaye ku def benn bu rafet nag te sansa dañ koy daal di bind mooy malaayka yi nga xam ne moom la yàlla booleel muy raqib ak xatiib maa yalfisu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid mooy malaayka mu nekk ci mbagum ndeyjoor mooy raqib mu nekk ci mbagum càmmoñ mooy xatib xatib mooy bind lu bon raqib mooy bind lu baax ku def lu baax lim ñëw ñëw ko bind te sens du ko bind ki def lu bon nag ah, maanaam malaay su malaayka yooyu du ko bind dana xaar yan quatre heures bu ko daan bu bëgg suñu borom door te suñu na lu mu tuuti tuuti danaa leen ko fay faman yaxmal misqaala saratin xayran yara waaye waman yaxmal misqaala saratin xayran yara nee na bu ngeen jëfee aw yiw tuuti tuuti danaa ko fay waaye ku jëm ab safaani lu mu tuuti tuuti danaa ko fay kon lu ñu war a gën a farlu mooy gën a góorgóorlu ci jëf lu baax te Sëriñ Tuubaa ñii ñuy yaakaar dundam jëpp da koo jeexal ci ak jaamu yàlla waaye diggéele ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye diggéel yonente bi jaamoo ko suñu borom subhanahu wa taala kon loolu ñun ñi nga xam ne ay taalibe yi ci loolu la war a mos xam ne ku am kilifa bu mel ni Sëriñ Tuubaa war ngaa gën a farlu ci lépp lu baax nga way ca loola waaye lépp lu am safaan nga moytu ko ndax Sëriñ Tuubaa daa wax ni wa am lanaa al hirsa ala taahaati waxtutanal kattan fil awqaat nga xam ne xër na ci ak topp yàlla te yàlla musal na ko it ci ak tayal ci ak ma na ko ci ak ma yàlla maanaam nga xam ne moom xër na ci topp yàlla waaye tayal na ci ak topp ci ak ma yàlla kon loolu bu ñu ko war a dégg mooy surtout waaye waxu julli bopp waaye ñu aju ci moom moo tax ñu wax kon war gën a farlu ci lépp loo xam ne dina mën a amal njariñ la wala ñu góorgóorlu ci lu ñu mën a xam ne tey jii ñu faatu nag ci biir bàmmeel tey ku leen laaj li ngeen gën a gëm Sëriñ وانا لله ما يدلس ابدا لان ساعه ولا ساعه قلبي فثم روى القران حتى اذا جاء احدهم الموت قال لم يرجعون لهل يا احمد صالح كما تركت كلا انها كلمه وقائلها ومن وراء برتاح الى يوم يقاسون ثم رمي رني فاتو وانا كبير بامل داني وحني داني وحي يالله نكو خنا يالله دوني جلو ابن دانت دان ساعه لما لا ساعه قلبي يالله في بيت برتاح تيجي ساعه بكرت الى يوم يقاسون comme que ñoom nag loolu la ñu sàkku te ñun néegi te jógee guddi kon nañ dina farlu ci lépp loo xam ne lu mu mën a jural ci yaaba la ñu nekk ca loolu lépp lu mu mën a jural ab safaan ñu waxali tey ñu gën a fonkal suñu biir waaye ñu gën a dëggal ndax kenn ku ne xam jullit ak mbokku jullitam ak lu ak taalibe ak mbokku taalibeem ni ko yonente bi sallallahu jullit ak mbokku a ne ak ay mbokku jullit ba pare yëgut nekkat ay mbokku taalibe kon nag li mu war mooy wasal xulubana bila tanasuhin wala wala taqaasuun wala tanaaburi wala tadaafuri wala tanaafuri xataa nasiru muslimin alxaasiin Sëriñ Tuubaa nee na asamaan ñoom duñ xëy xulee duñ xeex duñ xëccoo duñ ŋaayoo lenn ñoo xam ne dana dox sa diggante ak saa saa am sa diggante neen duñ ko def nee na dañu soppante dëggante wóolante kon loolu yi nañ ci gën a farlu te gën cee bàyyi xel bu baax a baax li Sëriñ Tuubaa daal bëgg ak taalibe mel ni ñu mel ni waaye li yàlla bëgg ak jaamam mel ni it ñu mel ni gën a farlu rek ci ci jaamu yàlla waaye gën a farlu ci liggéeyal Sëñ Tuubaa nekk ay taalibe wala nekk dara lu loolu tey it ñu gën a fonkaat ci kaw su loolu ne lu am solo la ndax mooy loola moo xam ne liggéey Sëñ Tuubaa teg ko leen war koo ci gisut maanaam dañ dañ koy gën a bëgg ndax melokaan yu Sëñ Tuubaa bëgg ci ñoom ñoom moo dajee ci ñoom muy ci góor ñi muy ci jigéen ndax góor ñi nan la melokaanu góor eh, ci col ak ci la melokaanu jigéen ci ak col ak la moo xam ne nan la ñu mbooloo Sëñ Tuubaa bari na mbooloo yoo xam ne dañuy dajale mbooloo laaj alal dem jébri ji wala ñu def wala ñu def cant wala ñu def noonu waaye am naa junni nit ñi nga xam ne nekk ci biir mbooloo mi mel melokaan woo xam ne bépp woon na melokaan yu lislaam bëgg loolu moom ñëw na mbooloo moo xam ne wax dëgg yàlla mel na ni ñuy mbooloo ni sifaa su dóor mel kon loolu it taw féex la joo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ñu ko dimbalee waaye taw féex la joo xam ne euh, xëy na li ko sos muy waxtaane xasiida yi ak jëmmi xasiida yi xëy na mooy sababu si loolu xam mbooloo mi fu mu daje dañu jàng alxuraan dañu jàng xasiida di def ay soññee te loolu moom mbooloom Sëriñ Tuubaa mu nekk loolu moo war a nekk seen objectif fu ñu daje rek da war a jiitu mooy ñu jàng alxuraan da ca doon ñu jàng xasida da ca doon moom doolu ko moom ñu soññante maanaam soññante ci ak njulub waaye soññante ak taal bi mooy ñi nga xam ne noonu la ko sëñ Mor Ndiaye ñi nga xam ne moom noonu la ko baaxoo di defee doon borom xam-xam nag macha allah kon loolu mooy li am solo kon daal mbooleem mbooleem moo xam ne ku ci bokk ñu ngi ñaan suñu borom saxal ko ci waaye ku ci bokk ci ñu ngi ñaan yàlla mu bokk ci nga xam ne mbooloo mu am solo la boo xam ni ku ci lamb Sëriñ Tuubaa da nga ko ci dag te sëñ Tuubaa képp ku mottalat lu dul sëñ Tuubaa nekku ci ñu ngi jéggu lu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.